والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu soit ak yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk da ngay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko C3S bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wii tax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 رحمة ربك بمجنون هيا زمن لا وينضج

العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi góor yi ñu fi teew ak mbokk góor yi nga xam ne ñu ngi di feneen maa ngi leen di ñëw ñëpp yéen ñëpp di sant bu baax di leen gërëm sunu taxawaay bi nga def tey dañu fàttaliku fàttaliku bu rëy boo may tawfeex li mën a fekk lii ba mën koo fàttaliku te muy ay jëfam di ay jaar-jaaram di ay jeexitam muy ñaari guddi Dakar yi nga xam ne bu mu jógee këram ca Mbàkke Baari ñu jële ko fa dajeeg moom jeexal jël ko ci boppam yóbbu ko ndar téye ko fa ba wax ne attan nañ ko fa am yéene sànq ko am yéene faagaagal ko bu jëlee ko Ndar gannaaw bu ñu waxee ne at nañ ko indi ko fii ci Ndakaaru téye ko fi ñaari guddi doon ko jaarale ñaari guddi yooyu ay ñoom jëlee ñu taxaw ñaari guddi yooyu mu nekk dafa ñaari guddi yoo xam ne sëñ bi da koo nett li boppam nett li fañ ko téye na mu mel ci ab xataay ak tàngaay ak lëndëm ak bari ay lox ak bari sobe ñu dund dund diis waaye xelam day ci sunu borom mi moo tax mu doon def moom ba loolu fekk ko fi ñu sant ci yonent salaatu wasalaam def ko ay askar yoo wax na ne min anfaxil min anfaxil adkaar yoo xam ne laa yufaariquhu abadan abadan nag dafa ëmb àdduna ak àllam lii loo xam ne def na ko fa mu liggéey yonente bi ba mu sol ko alxuraan jékki-jékki mu ñëw jàng Baqara jàng Aali Imraan ñaari saar yu mag yu baax la ñooñu ñoo ko fa jëlee ñaari ñoo ko fa génnee yóbbu ko ci ñu tegoon na wóor ko ci asamaan na su law soo xam ne sàmm yàlla rek lañ yaakaar ñun ñëpp ku daan dàqul ba ki nga xam ne dinañ ko war a yóbbu ñaari guddi yooyu la ñett bari na tasaaroo na tiis na loolu waaye teewul nag lii mu ci nekk leen boppam ak tiis yi yoo xam boppam da ko waxul day gis loolu moo tax. ñu am sañ-sañ am tawfeex ci fàttali ñun loo xam ne mën nañ cee jànge lu bari mën nañ cee jàng li nga xam ne moom la ko boroom jëfal waaye ñu jàng ci ak win waaye jàng ci ak tawakkul mooy nga wéer sa lépp ci yàlla te loolu loolu am jàngale ci ñun mënu mm-hmm. ko mënta def suñu diggante su borom nañ ko defee ñu def ko ci moom mi loolu mooy li xam ne tax taxul ñun ñëpp taalib bi yëpp ñu ngi fàttali loolu waxtu bi itam ànd dox bi nga xam ne doxub na ñëpp xam xam xam ne xam ni doxub jàmm rek la doxub fàttaliku rek la. doxub fàttaliku rek la. doxub sant rek la. doxub sant rek la. dara doxu ci. dara doxu ci. lu dul loolu. lu dul loolu. li ñuy wax marche pacifique. li ñuy wax marche pacifique. baatam dëgg dëgg dëgg. baatam dëgg dëgg. mooy sunu dox bii. mooy sunu dox bii. dara doxu. dara doxu. kon nag. kon nag. fu mu jaaroon ci Ndakaaru. fu mu jaaroon ci Ndakaaru. ak i coonoom. ak i coonoom. ak ñàkk ñàkk moyen. ak i ñàkk moyen am. di ko dox ak tànkam. di ko dox ak tànkam. te ña ko doon def loolu loolu te ña ko doon def loolu loolu jublu ci jublu ci sonal ko rek jublu ci sonal ko rek suñ borom aar ko ca loola suñ borom aar ko ca loola ba dara toppiwu ko ca ba dara toppiwu ko ca ñun dañ ci sant yàlla ñun dañ ci sant yàlla dañ koy sant sant la yàlla yi dañ ci sant la yàlla it ba nag door ko door ko sant moom ba pare door ko sant moom ci bopp ñuy gërëm ñëpp ñuy gërëm ñëpp gërëm ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di gërëm ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di sant kuréel bi nga xam ne di sant kuréel bi nga xam ne ñoom ñoo sos lii ñoom ñoo sos lii di ko def mat na ñaar fukki at ak juróom di ko def lu mat ñaar fukki at ak juróom benn ba jullit yëpp xam ne ba jullit yëpp xam ne ba jullit yëpp xam ne taalibe yëpp xam ne taalibe yëpp xam ne borom rek lañ ci jublu te lu yëkkati sëriñ bi rek lañ ci jublu sëriñ bi rek lañ ci jublu moo tax ñëpp ñëw ànd ceeg moo tax ñëpp ñëw ànd ceeg waaye ñi ñëwagul itam waaye ñi ñëwagul itam ñu ngi leen di ñu ngi leen di woo tey sàkku tey ñëw ñu ñëw ànd ko ak ñu ànd ko ak ñu kon kuréel bi ñu ngi sant bu baax bi ñu ngi leen di sant bu baax di sant di leen gërëm bu baax di leen gërëm bu baax média bi nga xam ne média bi nga xam ne keroog bi ñu jàppee bis bi keroog bi ñu jàppee bis bi lancé appel lancé appel ba nëgëni si ba nëgëni si kenn ci presse bi noppaluwul kenn ci presse bi noppaluwul ñëpp a ngi koy jàllale ñëpp a ngi koy jàllale ni mu waree ni mu waree ni mu waree ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di sant bu baax di leen ci gërëm bu baax di leen ci gërëm bu baax di ñaan tam di ñaan itam ci am rek luñ ci am rek yàlla boole na yàlla boole na ko yàlla na yàlla yëkkati seen daraja yi yàlla na seen daraja yi xabaar xabaar yëpp yoo xam ne yëpp yoo xam ni aw yiw rek la aw yiw rek la nanu fexe ba nanu fexe ba xabaar yi xabaar yi di di jàlle lu mel nii ak yiw rek aw yiw rek moo ñu indi réew ci jàmm moo ñu indi jàmm ci réew mi moo ñu indi jàmm ci réew mi mooy indi jàmm ci suñu diggante mooy indi jàmm ci suñu diggante ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di sant bu baax yéen ñëpp di leen ñëpp di leen ñaanal yéen di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha. moom la ñu waroon a tàmbalee. te moom la ñu waroon a tàmbalee. yàlla may ko wér. yàlla may ko wér. may ko gudd fan. ak ku wér mu àggale yéeneem. ba li mu bëgg ci murid yi. ba li mu bëgg ci murid yi. bëgg ko ci yoon wi. mu ànd bëgg ko ci yoon wi. yàlla def ko yàlla def ko. barkeb Sëriñ Touba. ci barkeb Sëriñ Touba. jërë leen jëf. ñu ngi leen di gërëm jërëjëf. والقلم وما يسر mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu soit ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg a bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg a bokk da ngay bind lu tolloog xët ci alxuraan def ci sa tur sa san sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko C3S bi la gën a jege wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bi di candidat point yaatal mbind nga topp tegtal yi lay jaarale ci yoon wii tax ñu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 13 46 wala ñu woo Serigne Ahmed Tidiane ca Matam ci 77 ku ci bëgg yeneen i leeral ak foo mënti nekk ci biir réew mi wala bitim réew mën nga woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. bi ni'mati rabbika bi majnun